من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا حمدا حمدا يليق بجلاله وعظمته وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكي بكي يراف أه لكو دالي يراف tefes yaraax montagne ba ci feeraay yaraax feeraay bi ñuy waxtaane tey ñu ngi leen di ziar di leen nuyu di leen fàttali rek di leen yëgal itam ne dañ fi am waxtaanu tàkkusaan fii ci suñu mbokk ami ba oustaz Saïd Ly di suñu wëllëre ñun ñëpp nga xam ne kenn réeréetul ay mbiram duñ fi nekk di guddal ci mooy kan waaye xam ngeen ne ku yàlla barkeel la ci liggéeyam fi naa tey kenn umpaleetul kan mooy sa Saïd Ly léeg-léeg ñu taseeg ñu nekk gore dañ naan namm nañu waxtaanam ndax wax at mu nekk yàlla def na dina dem gore def waxtaan mu am am solo ñépp bàmbeeku dem yàlla dogal na it ci liggéeyu lislaam bi ci la gimmi ci la yaroo ci la màgge te ci la fas yéene te insha allah balaa ñuy guddal nag dañu koy bàyyi rek mu te taataan te déglu ko mu thème bi ñu indil tey moo di fan la ñu toll ñun en tant que ay jullit ci alquran ak sunna maanaam téere bii nga xam ne mooy suñu feuille de route di alquran ndax moom la ñuy gindeekoo ci jamono wala suñu xalaati bopp waaye itam yenent bi nga xam ne ku jóg rek ne maa ko sopp boo demee ci réew mi léeg nga dégg daayiratu sopp nabi waaye sopp nabi mooy lan ndax mooy rek fortasu wala bu ñu tuddee yonent bi nga miir daanu wala mooy rek a sol solinu lislaam waaye mooy rek dëgg-dëgg mooy jël yonent bi sallallahu alayhi wa sallam topp ci dundam ak dundinam ak saaba yi roy ko roy gu mot sëkk roy ko ci suñu nekkin roy ko ci suñu culture suñu caada roy ko ci lépp nga xam ne yonent bi salaa salaam dañuy suubu ci cuubug lislaam cuub gu mot sëkk boo xam ne ku ñu gis rek xam ne ñii kat ñu sopp yonent bi balaa ñuy guddal daal ñu déglu sa Saïd te borom bi nee na ñiy déglu dinaa leen yërëm ida quriya alquran fastamiu lahu wansitu laalakum turhamun fu ñuy jànge alquran na ngeen déglu te xerewlu yàlla nee na ma def ci yéen yërmande laalakum turhamun dugal na xéewal yërmande bu ko yàlla waxee foofu rek mooy lu nit di ut ci kaw suuf muy lu baax ci moom di lu baax ci dundam dugg na ci rahmaan boobu yal na ko yàlla defal kon tafaddal maskuran ya ustaz asalaamaaleykum wa rahmatullah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñu ngi ñaanal sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu comme ni ko cheikh bi waxee ñu ngi ñaan bur yàlla tabaraka wa taala mu nangul ñu sunu yëngatu ñuy ziare mbokk yaraax yi comme ni mu ko waxee nekk place boo xam ne miinoon nañ ko trop daanañ fi ñëw fii ñu def tey tànt bi ñëw nañ fi ay yooni yooni yoon ñu ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala yëngatu yëpp yàlla nangul nu ko di ziare mbokk yëpp di leen baalu àq ci gëj a gise bi nga xam ne yitey àddina rek moo ñuy gàllankoor ba yenn nemmeekont yi ñu ci xaw a rëccale koy jégglu sunu borom di ko jégglu mbokk yi comme ni ko mbokk yi waxee ñuy jéemantu fàttalante ak ñoom ci fan lañu toll tey ci alquran ak sunna loolu jullit ñi war nañ ko laaj seen bopp war nañu laaj seen taxawaay tey ci téere bii muy alquran di téere borom bi tabaraka wa taala di téere bu yàlla wàcce jëme ko ci ñoom inna nahnu nazzalna alayka alkitaba bilhaq téere la boo xam ne yàlla moo ko wàcce ci muhammad mais dafa am jubluwaay kitaabun anzalnahu ilayk li tuxrija annaas min azulumaati ila nuur jubluwaay yi wàccu alquran yépp mooy mu génne nit ñi ci lëndëm yóbbu leen ci leer loolu rek mooy jubluwaay bi kon laaj bi mooy lu tax téere bi wàcc di ñu jële ci lëndëm di ñu yóbbu ci leer te ba léegi ñu des ci lëndëm rek mënuñoo egg ci leer gi waxtaanu jubluwaayu waxtaan wi dina nekk mawdu boo xam ne liñ ciy jublu mooy rabtul muslimin fi lqarni alhaadi wa ishrin bi kitaabi rabbihim wa dalika li imanina aljazim anna kitab allahi huwa alilaj annajih likulli ma tuaanihi albashariya min awja sunu jubluwaay mooy ñu jéem tënk sunu bopp tënk mbokk jullit yi ci seen téere borom téere bi foog ñu yeewu ci foog ñu yeewu ci sunu bopp foog ñu tënk sunu bopp ci téere bi bu ñu bëggee am jàmm àdduna am jàmm alaxira bu ñu bëggee jub àdduna alaxira yàlla kontaan ci ñun foog ñu yeew sunu bopp ci alquranul karim ak sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li waral loolu mooy dañu gëm ne gëm gu dëgg gu wóor ne téere yàlla ak sunna yenent mooy garab mooy saafara guy wéral feebar bi dëkk bi nekk tey feebar bi umma bi nekkee du ma wax àddina bi parce que day sori ci ñun maanaam réew mi di Sénégal feebar yi ñu nekkee du mun a wér benn yoon problème yi du saafarawu jàngoro yi du wér jafe-jafe yi du deñ lu dul dañoo dellu ci téere yàlla ak sunna yenent ay at yu néew ci ginnaaw ñun ñëpp dañoo gëmoon ne bu ñu demee alternance réew mi neex wala wala 2000 bi ñu ci tollee góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp jàppoon nañ ne Sénégal day am soppeeku ndax baat boobu sax lañ doon jël naan ak taxyir mooy soppi est-ce que changé na est-ce que am na lu changé dama leen di laaj ndax am na lu changé ah di kon yéen ne ngeen dafa gën a métti lu ko waral mooy li war a changer mbir yi loolu la ñu indiwul maanaam feebar bi ki feebar garab gi mu war a naan mu wéral ko naanu ko wala bu fekkee ne jox nañ ko garab gi it ne ko lii la au lieu mu naan garab gi dafa jël comprimé bi daal di koy takk ci bopp bi te fekk daf ko waroon naan mu dugg ci biir tas ci yaram bi mais mu jël comprimé bi daal di koy teg ci kaw bopp bi daal di jël benn sagar yeewu ko ci est-ce que waa ji dina wér du wér lu tax téere yàlla fa huwa fadlan an annahu nuurun wa hidaaya يعتبر المنهج الأمثل والدستور الخالد الذي يرشد البشرية إلى الخير في عاجل الدنياها وعاجل أخراها تيري يالا أك سنة يننت لير لا بو يالا تبارك وتعالى préparer doomu aadama yi pour ñu ciy niitu tos ki koy jënd lan la koy jëriñoo pour mu koy niitu di ko leeral saa yu aajowee boppam loolu la koy aajo léegi boo amee torche ba pare te jamonoy aajo jamono ji nga xam ne torche bi liggéeyam jot na doo ko utiliser ndax torche boobu amal na la njëriñ mooy fi mu nekk nii ñun ñëpp am nañ alquran am nañ ay téere alquran am nañ ay téere sunna ñun ñëpp daanaka néew na kër goy tudd dugg doo fekk kitaabul quran doo fekk hadisu buxaari wala muslim wala ibnu maaja wala wala wala mais ba léegi ama amalu ñu njëriñ lu tax parce que dañuy fàtte ne alquran du pour bibliothèque bi du pour armoire bi du pour buntu kër gi du pour oto bi pour kan la pour borom kër gi borom oto bi borom bibliothèque bi borom armoire bi alquran pour moom la mais soo amee kaamil bi soo amee kaamil bi nga jël ko teg ko ci sa kaw armoire wala sa kaw bibliothèque wala nga teg ko ci sa oto wala ci sa kaw buntu kër nga tuddee ko téere barkeelu du la jëriñ même sax yenn saa yi li ñuy def di ko jàngal ku dee alquran waxul loolu li tunzira man kaana hayyan wala loolu du alquran surtout yaasin mu ne li tunzira nañ waar pour ñu waar man ki nga xam ne hayyan dafa dund waxul ku dee ndeysaan lu ñu waroon jàngal waa ji muy dund ñu jàngal ko ko ñu bàyyi ba mu dee ñu koy jàng fekk bi muy dund lañ ko ko waroon jàngal parce que pour mu xam fu muy teg tànkam garab gi dañ ko waroon xóoyal ci ndox mi ba mu seey ñu jox ko malade bi ñu bàyyi ba mu dee ñu jël ordonnance yi wala forote bi di ko diw hal sa yan fa la yan fa shay du ko jëri yi moo tax xeetu lislaam tey pour ñu jub pour ñu baax pour ñu am jàmmi àddina dana métti parce que yoon bi lañ jaarul wax naa ko démb oxygène ci guddi fa laa fanaan ma ni leen li tax li ngeen di thème bi ngeen di càmbar nii lu tax du baax mariage la woon sëy lu tax sëy yi du baax ku réere ñetti mbir loo def ci àdduna du baax ñetti mbir ku ko réere loo def ci àdduna du baax ku réere yàlla loo def du baax ku réere yonent loo def du baax ku réere sa diine loo def du baax lu tax kan moo santaane sëy kan la yàlla sëy ñor ko ba mu yónni Muhammad demal nga jàngale ni ñuy sëyee mu jox ko téere alquran ne ko nii la programme baa ngi nii nit ñi xamuñu ki santaane loolu nit ñi xamuñu ki doon jàngale loolu nit ñi liiruñu programme bi war bu koo def est-ce que dina nekk du nekk loolu nag mooy li ñu li ñu dal nii mooy dinañ gis léegi ci ay minutes yu ndaw diilul awwal génération bu njëkk bi sahabatul kiram gaa yu tedd yu baax yooyu keroog ba ñu jëlee quran ak sunna teg seen kanam fan la ñu toll ci àdduna ak ñun ñi nga xam ne alquran baa ngi ni sunna baa ngi ni te ñu ngi deltu ginnaaw ba léegi mënuñoo mënuñoo avancer benn yoon benn mètre mënuñu ko dem alquran ak sunna mooy manhaj système boo xam ne al amsal mooy modèle bi yàlla teg pour di baaxal suñu dund moo tax yonent yàlla muhammad mu ne taraktu fiikum ma in tamassaktum lan tadillu baadi maa huwa kitaab allah wa sunnat rasul léegi nag buñ ko bàyyee li muy tekk mooy dañuy sànku li tax doomu aadama di baax amul benn programme lu dul alxuraan ak sunna rek mooy tax progr nit baax boobu dong mooy tax nit baax amul leneen leneen lu ñu mën a jël pour jéem cee defar nit nit ki du nite du baax xoolal tubaab day jël nit di ko former di ko jàngal ba mu egg ci yenn niveau yi mais nga jégi-jégi ñu ne détourné na ay milliards baaxul ñaata yoon ngeen dégg fi mu nekk ni Sénégal lool ñooñu ñoo leen sonal ñooñu tubaab bi defar ba yaakaar ne baax lañ indi leen jox leen réew te foog ñoom ñëpp tey am nañu ay diplôme mais kenn baaxu ci Sénégal doo dégg mu ngi ne cinq cinq mille problème mu cinq mille lañ lañ am problème mu dix mille un million dix mille lan ngeen di dégg deux mille ak léegi milliards rek te pourtant ñooñu ñëpp dañu ne ñu baax lañ bi ñuy seet seen CV pour di leen jox fonction yi poste yi ñu xool seen CV ñu xool seen kayit googu ñuy jëli police nga xam ne dañuy kase sa baaraam yi seen profil am na beneen baat bu ñu koy wax bonne vie heureuse ñoom ñëpp dañu ne non ñun mais macha allah ñii normal nañ xam lu tax loolu la nit ñi di def ay njuumte bonne vie heureuse ci ci yàlla bokkul bonne vie heureuse ak nit ñi. nattukaay yi la ñuy juutal nattukaay yi loolu moo tax addina bi waxuma Sénégal ne addina du baax parce que yàlla moo moom adduna yàlla moo moom adduna d'accord ngeen ci loolu wala d'accordu leen ci ku moom adduna bi yàlla moo ko moom yàlla moom adduna moom mbindee fi nekk ci adduna jël programme am daan ne adduna lii moo koy baaxal mi ngi nii da ngeen bëgg adduna baax ñu ne waaw mu ne mu ngi nii su ngeen jaaree fi adduna bi day baax ñu ne non non non ah nañ jéem a xalaat ñun beneen programme bu gën a méngoog ñun li ñu bëgg ndax addina baax li yàlla wax daf ñuy tardeel nañ ko teg ne ba pare ñu bëgg addina bi baax est-ce que yéen ñu ngi xalaat wax ji yàlla nag li mu programmé teg ko sunu kanam ñaari mbir yooyu muy ñaari balluwaay yooyu mooy ad dustur al xaalid allazi yursidu al bashariya ila al xayr programme bi jubal nit ci lu baax constitution boobu yàlla teg ne bu ngeen ko dundee baax jub ci àddina ak alaxira mu gaaw mu yéex da ngeen di baax mooy alxuraan ak sunna amul leneen amul leneen qur'an boobu nga xam ne yàlla moo ko wàcce subhanahu wa taala liyakuna lil bashariya kullul bashariya al manhaj allazi yajibu an taltazimahu fi hayatiha wa tasiru ala mabadihi fi kulli umuriha yoon wi yàlla rëdd mbokk yi pour doomu aadama yi jaar ci dundin gi yàlla bëgg doomu aadama yi dundee ko melokaan bi yàlla bëgg nit ñi mel yàlla nee na maa ngi ko def ci alquran ak sunna dafa ma ko feneen keroog ba nga xamante ne jiilul awwal ñu njëkk ñooñu alsahaba wa tabiin wa man baadahum alsalafu saalih keroog bañ ci ŋoyee ñu jàpp ci fa maza kanat natija lan mooy résultat bi mooy ñu nekk sangu àdduna yonent bi génnul àdduna ci ñaar fukki at ak ñett yonent bi islamisé na golf bi àdduna bi yëpp nekk ci ginnaaw jullit yi pourtant loolu baaxaloon ñooñu loolu defoon ñooñu ay modèle ñooñu nga xam ne kenn par kenn koo ci jël cent vingt quatre mille sahaaba ñoo waroon yonent yàlla muhammad nañ ci jël kenn rek tey bu ci Sénégal jëloon kenn modèle rek rëcc kenn su fekkee dagan naa wax ki ci gënoon yamamaay ki ci gënoon nooy su fekkee dagan naa wax suñ jëloon kooku dañuy dem ashaabi kan nujum kullu maqtadaytum ihtadaytum gis nga yonent bi nee na samay saxaaba ñi ma yar man ba bàyyi leen mu ne dañoo mel ni ay biddéew dañoo mel ni ay biddéew ku leen xool rek daal di jub lu tax ndax moom moo leen doon yar te yàlla moo nekk wa in tuti uhu tahtadu su ngeen ko toppee moom mi jub gaa yi topp ko moo tax ñu jub ci ci ci wàll yépp moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génération boobu mu yaroon ñooñu mu formé woon ñu nekk modèle ci àdduna ak ña ca teguwaat xoolal ñooñu sax waxuma la sax saxaaba yi mais saxaaba yi ñi ñu yar mooy taabiin yi ñi ñu yar ay modèle lañ ñoom Sufyaanu Sawri yi ñoom Abdoulaye Moubarak ñooñu sax ay modèle lañ pour ñun adduna bi mënatul génne ñu mel ne ñooñu waxuma saxaaba yi de ñooñu nañ leen bàyyi ne ñu jël taabiin yi adduna bi mënatul génne modèle yu mel ne ñooñu ñooñu ñëpp kan moo leen defar mooy alquran moo leen yar sunna jubanti leen mbokk yi laa yunkir musannifun fi sharq wal gharb annahum asbahu bihi saada wa qaada kenn mun taweddi adduna bi tey kenn mun taweddi ñu njëkk ñak ñu mujj ñi penku ak saw ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa defar ay génération yu dul jeex te fii adduna bi egg tey nit ñi di coow ay yu kenn xamul boobu adduna bi yeggul fii ay nit yoo xamante ne fu ñu génn ñu ne ñu ngi nii fu ñu dem ñépp yéem leen kan moo leen defaroon yent yàlla muhammad waaye ci lan la leen defare woon ci alquran ak sunna alquran boo xam ne mi ngi fi ba tey sunna soo xam ne mi ngi fi ba tey te ñun mënuñu defaroon alquran génne woon aboubacar umar ousmane ali ay nit yu ragal yàlla ay nit yu maandu ay jullit alquranu tey lan lay génne ay rappeur ay simbakat ay mbër ay ay lu kenn xamul kon réellement lan mooy problème bi xanaa téere bi dañ ko gëmul ni ko ñee gëme woon dañ ko jàngul ni ko ñee jànge woon effectivement loolu la ñun bala ñuy jàng alxuraan sax am ku dee bul ñaan yàlla mukk ay nit ñëw sa kër di la jàng alxuraan bul ko ñaan yàlla de bul ko ñaan yàlla mukk saa yoo gisee nit ay nit yor a kaamil di dem am na lu xew bala ñu koy jàng rek am ku dee wala balaa jullit bi jublu alxuraan rek tiit tiit commencé jublu alxuraan tiit moo ko ci jubal mais bu fekkee yàlla mu ngi koy bàyyee jàmm yàlla mu ngi koy may wér faalewul quran faalewul nitu quran faalewul ñooñu quran loolu sax li ko li leen koy wan mooy fi mu nekk nii école alquran yi ak école yi dul école alquran yi yu gën a jag benn ngi nii ci biir jàkka ji yërnu naa ko léegi wër leen fi ngeen xool école nasaraan yi ban moo mel nii fii luñ fi jàng luñ fi jàng alxuraan allahu akbar moo tax foog sunu dund nii la mën a mel sunu dund nii rek la mën a mel ixwaan yi sahaaba yi nga xam ne dañu jëlal quran teg seen kanam seen ndeyjoor sunna nekk seen càmmoñ bu njëkkatee loxo ndeyjoor ci quran lañ koy teg bu njëkkatee loxo càmmoñ ci sunna lañ koy teg lañu dundoon lépp dafa leer li ñu waxoon liñ daan wax dafa leer liñ daan dund dafa leer benn borom xam-xam mu ngi nettali nee na ca jigéen ña sax bu ci kenn jëkkëram doon xëy day ànd ak moom ba ci bundu kër gi ne ko ittaqillaha fiina ragalal yàlla ci ñun ragalal yàlla ci ñun ñun mën nañoo muñ xiif waaye mënuñoo muñ safara fexeel ba lépp looy indi ci kër gi ñu koy dundee na nekk lu dagan yaa ngi ni di dem nag waaye lépp loo mën a am indi lu dagan fi ci kër gi ñun mën nañoo muñ xiif waaye mënuñoo muñ safara walal jigéen ña sax jigéen ña ci lan lañ leen yare woon quran benn jigéen njaaloo na ca jigéen ñu démb ñu gënoon quran njaaloo ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dama njaaloo instant bi may wax ak yow sama biir bii dafa am lu ma ciy yëg doom a ngi ci te xam ngeen ne jamono yooyu diine la ñuy atte woo ku njaaloo luy sa atte mooy dañ lay rajm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buggul rey nit lu féletal pour ndaw si tuub digganteem ak boroomam ndaw si ne ko fi may wax ak yow doom a ngi ci sama biir bi te amul bàyyi mu ne ko demal ba nga am doom nga ñëw pour ubbil ko bunt pour mu mun a dem tuub digganteem ak boroomam ndaw si dem ba am doom ñëw ne ko xam nga ma ne ko déedéet mu ne ko maay ndaw si njaaloo woon ñëw ci yow nga ni ma demal ba nga am doom am naa doom mi ngi nii gis nga ma yore defal li yàlla wax ci man buggumaa yóbbu ci sama borom bàkkaar yonent mi ne ko demal nga nàmpal ko ba mu fer xoolal pour ubbil ko ay bunt pour mu tuub mu dem nàmpal ko ba mu fer bi muy ñëw mu jox loxo bi mburu mu jox xale bi mburu jàpp ci loxo bi jox ko mburu pour bu ñëwee yonent bi na xam ne xale bi soxlaatul ween bi mu ñëwee ne ko xam nga ma mu ne déedéet mu ne ko maay ndaw si njaaloo woon nga ni ma demal nga am ba nga am doom ma am doom ñëw nga ni ma demal bam fer kii fer na xoolal mi ngi ni di lekk mburu defal li yàlla wax ci man sallallahu alayhi wa sallam yonent bi jël doom ji jox benn sahaaba ne ko yar ko daane sahaaba yi def leen atte yàlla ci kawam saxaaba yi jël ay xeer ginnaaw bañ ko laxasee ay sagar pour yaram yi bañ a ya awra yi bañ a wuññeeku waral pour awra yi bañ a wuññeeku ñu jël ay ay ay sër laxas ko ci ndaw si bu mu dëgër yonent bi ne aqimu haddallahi alayha def leen santaane yàlla ci kawam saxaaba yi di ko dóori xeer Xaalid ibnul Walid jël benn xeer bu rëy dóor ci bopp bi bopp bi daal di tasaaroo yonent bi lan la wax Xaalid Xaalid ndànk mah yaa Xaalid laqad taaba tawbatan law qusimat ahlal madina la wasiathum tuub na tuub boo xam ne suñ ko séddale woon waa madina mu doy leen ñoom ñëpp bu waa madina njaaloo woon mbaa ñu naan sàngara mbaa ñu def safaan buñ leen séddale woon tuubu ndaw si ñoom ñëpp danañ dugg aljanna ñooñu mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lan la leen yaree ci Qur'an xoolal ñu teg ci ay fan rek ci góor ki daal di ñëw mooy maïs ku góor ki daal di ñëw li li lay wan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yarkat la woon lee koy wan mooy bi mu ñëwee bi mu ñëwee laaj ko waaye koo séqaloon mbir mi ñun tey bu doon fii kenn la ci ñun benn soxna ñëw ne la dama tool diggante te naan ko kan la wala yonent bi laajul ndaw si kan la kan moo la ëmbal danaan wax saxaaba yi bu kenn ci yéen gis moroomam def lu bon mu ñëw di ma ko wax ñu ne ko lu tax mu ne parce que soo ma ko waxee bu ma ko nee jàkk sama xel dem ci li nga ma waxoon sallallahu alayhi wa sallam kon kooku moom dong mooy yarkat moo tax yàlla teg ko ci sunu kanam mu nekk modèle yàlla mu ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana bu fekkee da ngeen bëgg ku ngeen toppandoo dong pour jub pour baax mu ne mi ngi nii ci mbooleem wàll yëpp nag côté bu nekk yonent bi dong lañ fa mën a toppandoo amul keneen hatta yeneen yonent yi li ñuy baax baax baax am na yoo leen mënul roy jëlal Isa munoo ko toppandoo ci nu mu doon dundeek soxnaam kan ma mën a roy Isa ci digganteem ak soxna kan lu tax amul soxna ku yarul soxna doo ko roy ab célibataire du royukaay ci sëy wala ndax xamul nu ñuy yoree jabar demal ci Ibrahim am na soxna am na doom waaye yorul réew jiitewul woon gouvernement amul woon gouvernement yonent yàlla Muhammad dafa yore woon gouvernement ci Madinatu Munawwar am ay soldats yuy xeex am place bu muy attee am place bu muy jàngalee am place bu muy defee lépp moo tax bi mu nee cëpp Madina yonent bi saa sallam li mu njëkk a def mooy place bu ñuy yaree jullit yi place bu jullit yi di dajee muy jàkk première yonent bi xoolal egsi Madina deful lenn tabaxul këram yéen bi ngeen ñëwee yaraax lu ngeen njëkk a def tabax seen kër avant jàkka ji boobu ba léegi sax jàkka ji mën ta pare ñu ngi koy yalwaanal d'accord ngeen fu nekk loolu la fu jullit yi ne cëpp li ñuy njëkk a def mooy seeni kër bu kër yi pare ba naagis ñu doog a jublu ci jàkka ji ay dërëm ak ñaar dërëm yonte bi bi mu nee cëpp Madina lu mu njëkk a def balaa këram jàkk dañ koo fat dañ koo fat ci benn kër muy tabax jàkk ji wala ñooñu mënuñoo mel ni ñun mënul nekk parce que ñee yàlla lañ gëm moo nekk seen kanam yonent bi moo nekk seen kanam ñun adduna moo nekk suñu kanam yonent bi da doon wax nit ñi lan la leen sahaaba yi rawee mooy sayun waqara fi qulubihim benn mbir bu nekk seen xol loolu lan la mooy imaan bi yonent bi da doon wax gaa yi ne sallallahu alayhi wa sallam sahaaba yi dañu am iman di xaar quran ñëw ñuy exécuté ñun dañoo am quran di xaar iman ñun am nañ quran bu mat mu ngi nii 114 saar musaf complet complet mais xam ngeen lu tax mënuñu dem iman la ñuy xaar iman pour bu iman ñëwee ñu doog a dund lii ñee nag iman lañ am di xaar aaya di wàcc keroog jàng ngeen ci quran keroog ba aaya muuraay wàccee fan la fekk yenn ji yenn soxna yi fan la leen fekk ma laaj ko sama mbokk yi aaya muuraay ba mu wàcc fan la fekk yenn soxna yi marché am na ci koo xam ne doomam moo daw ñëw ne ko aaya wàcc na léegi ne na jigéen dafa war a muuru mu taxaw ne ko demal nga indil ma muurukaay kër ga mu ne nañ dem ba kër ga mu ne déedéet du ma teggi sama tànk bi di ko teg ndax xaw ma dee di ma dal ma dégg waxu yàlla du ma ko jëfi demal indil ma ko fii ma ko déggee laay xaar ba mu ñëw ma def ko am ñoo xam ne ci teen yi la leen fekk ñuy rooti seeni sër lañu xotti ci suuf daal di muur bopp yi ñun depuis ñaata ñu ngi ko dégg depuis ñaata at depuis septième siècle ñun ñu ngi ko dégg ba léegi booy booy xool alamul islam yi li muuru matagul un million wala deux millions ci ay nit bu doon Sénégal la ñu ne quatre-vingt-quinze pour cent musulman téeméer boo jël ñu ne juróom ñoo dul jullit soo fi soo fi doon xool jigéen ñi solo ni l'islam bëgg mataguñu fukk ci téeméer boo jël matuñu fukk li fi li fiy sàng yaramam su doon téeméer bu nekk da nga naan virgule virgule zéro virgule pour nangam inna lillahi wa inna te te ñun ñu ne ñun ay jullit lañ ñee daaw ñu yox yoxi ci waxu yàlla ak waxu yonent ñun nag moo tax duñ dem dañuy sonn yàlla tabaraka wa taala da wax ci hadisul kursi ya abd anta turid wa ana urid fa in aataytani ma urid aataytuka ma turid fa in naazatani fi ma urid atbaatuka wala yakunu bada dalika illa ma urid ya abd e yow sama jaam da nga am say projet ma am samay projet man yàlla soo ma defalee samay projet yow doomu aadama soo taxawee ci projet yàlla yàlla nee na ma taxaw ci say projet yow doomu aadama soo xëccoo ak man sama projet yi ne doo ci def lenn ma sonnal la ba say baqate ne bàjj te yàgg-yàgg dara du am lu dul man yàlla li ma bëgg mooy am xoolal semaine yi dafa am yoo xam dafa war a leer ci ñun mbokk yi ana Ben Ali ana Ben Ali ka nekkoon Tunisie yàq ci lislaam loo xam ne jàkk yi sax kenn ñemewul nodd kenn ñemewul dem jàkk juróomi yoon ci waxtu bi boo demee suba gée ngay demaat gée gée kenn ñemewul waaraate ci jàkk kenn ñemewul waxtaane diine nga dem kuliyatul hadis ca jaamia ba jaamia islami bu Tunis nga fekk kiy jàngale hadis yonent bi saa salaam sol mini def bopp neen mini pooj yi nekk ci biti mu nekk jigéen di jàngale hadis tey anamu anamu tey mi ngi ca ñag ba ca xaj yàlla li mu bëgg mi ngi dem ana mubaarak yàlla li mu bëgg ku ci bëgg a sonn ku ko bëgg ne du am da ngay sonn sama benn sëriñ oustaz Abdou Karim yàlla na ko yàlla yërëm daf ma daan wax ne su ma duggee ci kaaba gi dégg allahu akbar allahu akbar ma ne abu jahlin fen na de lii la waxoon du tasaaroo du dem ana mu tey diine yàlla moo ko moom yàlla moo bëgg jaam ñi bëgg leen delloo ca ajjana ji leen iblis génne woon moo tax yàlla baaxee leen diine pour ñu moy ci pour delluwaat ci aljanna jooju loolu kese la maanaam diine buum la danga dégg ñu ne xablullah yàlla dañoo wàcc ñu jóge ci kaw ñëw ci suuf comme yàlla ngi ci kaw mi ngi arsh mu yoor ñu buum gi pour ñu langaamu ci fekkiwaat ko buum gi la ñuy yoor mooy diine ji pour lan pour ñu langaam waat ci yéeg mais boo nee nii benn ñaar ñett daan ne dama sonn waaye daal di cëppeelu doo dem mais boo jàppee di teg di teg di teg yàgg-yàgg da ngay yegg rek te boo yeggee rek coono ji jeex dégg ngeen waa ji nguur si nee na keroog ba ñu jëlee pouvoir bi la ma góor gi ne sunu coono jeex na sunu problème jeex na tegal ma milliard ma xool mu teg ba mu mat mu ne ko góor gi li mooy milliard mu ne ko coono jeex na walla yéen am ngeen problème allahu akbar yal nañ yàlla aar yal nañ yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp loolu mooy wax bi yal nañ yàlla woon neen mu wërsëgal ñu bàyyi neen yonent sallallahu alayhi wa sallam moom bi ko yàlla yónnee mu ñëw di tabax ay cadre la yar ay cadre lan mooy cadre mooy koo xam ne bu ñu ko dénkee société du lekk xaalis bi loolu mooy cadre cadre mooy koo xam ne day rus ay nawleem dénk ko mu détruire lépp ngir boppam jàngeen histoire Umar ibn Abdul Aziz ki nekk amirul mu'minin woo jullit ñi di réunion ñoom réunion bi jeex mu am gan mu fay lampe bi ñoom ñaar ñuy wax ci lëndëm gi gan bi ne ko waaw ah lëndëm gi ñuy wax nag mu ne ko pétrole bi pétrole jullit la te man man ak yow li ñuy wax sunu mbiru bopp la du mbiru julliti fii lan la ñuy def ñi génnul ci Qur'an ak sunna bu ñu leen falee lu ñuy def ah oto réew mi lañ leen di jox essence gasoil réew mi essence bi ah xaalisu réew mi li ñuy fayee ko trésor mu la ñuy lekk te amuñ sax ngor kuñ ci sox ti kuñ jox téeméer sax au lieu mu lekk ñaar fukk bàyyee xeet bi 400 yi moom 500 yi lay lekk te naan war nga laa jënd suukar si sax matut dégg ngeen li mu wax de 500 yi war nga la koy jëndee ne suukar bi matut mbokk yi teere yàlla tabaraka wa taala ak sunna yenent sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy guide bi nga xam ne mooy jubal nit moo koy jegeel lépp lu sori woon ci lu baax mooy nekk dalil bu muy gisee bis bu demee ba ay mbir gaar ko ci kanam lan mooy lamp bu muy gisee lu muy lu muy génne ci loolu mooy téere yàlla ak sunna yonent sallallahu alayhi wa sallam imam ali lan la wax nee na maa dégg yonent sallallahu alayhi wa sallam ne innahu satakunu fitna ka qitai leyli lmuslim musibaa ngi ñëw lëndëm goo xam ne dafa tol ne dafa mel ne lëndëmu xaaji guddi musiba bu mel ne lëndëmu xaaji guddi mi ngi ñëw ci kanamu jullit sahaaba yi tiit ne ko mal maxraju minha ya rasulallah lëndëm googu nuñ ci génne mu ne kitaab allah wa sunnati rasul loolu rek muñ ci génne amul leneen yéen yaakaar ngeen ne milliards yi ñuy wax ci réew mi pour milliards yooyu aaru kenn dootu ko laal kenn dootu ko dugal ci nafaam ci gafaam lan la téere yàlla rek loi yàlla rek mooy tax waa ji bàyyi ko fi mais beneen loi bu nu mënta indi waa ji dina laal dina ci coppati xoola semaine bi ci ay audit lañ nekk da ngeen dégg ñu ne ñëpp lañ jàpp dégg naa ci ay ñoo xam ne clé clé clé USB yi nga xam ne mu ngi jar lan ay 3000 ak 5000 nga gis ku ku ne dama ko jënd 1 million kudd kudd yu ñuy lekkee nga gis ministre bu la ne kudd bi maa ngi ko jëndee 2 millions kudd kudd yi lu ñuy jar ci marché bi ah ñaar fukk ak juróom ñaar fukk ñu koy jëndee million xanaa du kudd gu ñuy lekkee ceeb kese nii ci séminaire wala kudd gi dafa am lu ci rax ci biir ba ah kudd kese 1 million wala 250 000 kudd kese wala du kudd jàmm loolu moo tax foog ñu delluwaat te loolu dellu gi nit ñi di delluwaat ci téere yàlla ak sunna yonent loolu day baaxal doomu aadama yi day tax doomu aadama bu nekk mu xam fu mu teg tànkam dootuñu yar nit ñi ci bëgg àdduna dootuñu yar nit ñi ci teg àdduna seen kanam bu fekkee mbir mi nii la ida kaana al amru kazalik kayfa nuidu mabadi al islam ila dunya nnas bu fekkee mbir mi nii la naka la ñuy def ba delloowaat l'islam boobu yonent sallallahu alayhi wa sallam baaxaloon ñooñu ci àdduna nit ñi naka la ñuy def ba loolu dellu siwaat ba ñu tàmbalee di yar nit ñi ci ay caaxaan ba léegi lan moo am ci dëkk bi yonent yàlla dafa yaroon ñoo xam ne Omar mi ngi koy nettali Omar moo génn ànd ak sahaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu génn xuruj ñu dem ba ci àll bi ñu xiif ñu dajeeg benn sàmmkat Omar ne bàyyi leen ma testé sama waa ji ma xool réew mi fu nu toll nan xool réew mi fu nu toll ndax ñun ñu ngi liggéey wala liggéeyun Omar ne sàmmkat bi ñun de lañu xiif mu ne waaw ñu ne ko sa xar yi lañ bëggoon nga jaay ñu ci benn gàtt ñu rey ko léegi lakk mu ne moom ma ko dañ ma ko sàmmloo Omar ne boo demee nga ni borom xar yi till yi ñoo fàdd benn xar sàmmkat bi ne Omar ayna allah ana yàlla Omar daanu ci suuf xam bu mu ximbalikoo mu ne kii warul nekk sàmmkat kii warul nekk sàmmkat kii foor dafa nekk palais ci wetu président de la république xoolal ñooñu fi ñu yemoon jàngeen histoire Omar tourné na ci biir dëkk bi guddi di surveiller mu dégg yaay ak doom di waxtaan ci benn paanu soow paanu soow boo xam ne dañ ko doon jaay muy jar yaay ji gis paan bi jar mooy nañ ko def ñaari paan maanaam soow mi dañ ci def ndox ba mu xormet ba mu nekk ñaari paan doom ji naan ko yaay loolu dafa araam te loolu Omar daf koy tere mu ne ko Omar nekku fi Omar gisuñu ba débat bi ku guddee ba xëcc diggante yaay ak doom dañ ko ci def ak doo ko ci def da ngaa dëgër bopp ak Omar nekk fi gisuñu lan la ko wax bu fekkee Omar nekk fi gisuñu in kaana Omar laa yaraanaa fa rabbu Omar yaraanaa soo moomu daal di normal kenn sottiwu ci ndox léegi yéen seen magasin yi seen marché yi seen seen am ngeen compteur de prix am ngeen douane am ngeen police am ngeen gendarme est-ce que marché bi normal na ah normalul xoola fee marché bi amul ay policier amul ay douanier amul ay compteur de prix te dafa normal fa normal fii am lépp te normalul lu tax parce que ñaari balluwaay yi moo dul benn ñee fañ leen yare ak ñii fañ leen yare du benn loolu moo tax bu fekkee dañu bëgg a indiwaat diine ci kaw nit ñi kayfa najalul islaamu dusturan lil xayaa naka la ñuy fekkee naka la ñuy fexee ba l'islaam nekkaat constitution ci dund nit ñi wa qanunan lil hukmi mu nekk loi pour ñu àtte ko naka naka la ñuy def at tariqu ila zalika ya ixwaan la budda an nujida lil islami rijalan il faut ñu utal islam ay góor ay góor suñ nee góor ku nekk fi nga toog sa xel dina dem mais est-ce que nit ñi amuñu ay góor est-ce que góor nekk fi góor ak takk tubéy du benn dafa am benn xale bu demoon examen mu am mu ngi ci tilaawa yi xaw ma xaamis la xaw ma saadis bi mu amee examen mu ñëw ci papaam ne ko léegi nag góor laa il faut nga utal mu moto parce que léegi góor laa am naa examen maa ngi sol pantalon maa ngi takk ceinture léegi góor laa nag may utal moto papa ji ndeysaan nekk borom xam-xam di ko wax doom ibnayya inna min arrijaali la bahima te kat ba muy nekk bahima fi surati rajuli samii lmubsiri doom am na ci góor ñi ay bàyyi ma lañ bàyyi ma sax a leen gën bàyyi ma balaa ngay xam ne nit ñi am na ci ñoo xam ne bàyyi ma moo leen gën daa leen jox misaal yu ndaw soo yeewoon fajar taxaw sa buntu kër nga gis sa benn dëkkandoo borom kër gi nga jàkkaarloo ngemb takk ay téere sotteeku soow jub si la nooy def looy wax te mooy koo xam looy wax fajar googu looy wax waa jooju tontu leen ma da ngay daw sa biir néeg rek sa soxna yow Issa Ndiaye kañ la dof est-ce que gisu leen loolu tey gisu leen ko gisu leen nit ku ngemb sotteeku lu kenn xamul di dóorante ay kurpañ ñu koy yenn ci kaw di ko nduli ci suuf ndax million ndax poñet àdduna ala xaalis dafa dem ba nit amatul valeur nga gis jigéen di jaay boppam jigéen xam nga buñ nee jaay sa bopp ngay lekk sa deret di dagg sa deret di naan di lekk sa bopp ah xoolal foofu fi ñu toll tey moo tax alquran ku gëmul ne waxu yàlla rek yow alku nga loolu yàlla naan summa radadnaahu asfala saafiliin gars yi dañuy tooñ nee nañ yàlla bi mu nee wa laqad zarana li jahannama kasiran min al insi wal jinn ba aaya bi dem lahum qulubun la yafqahuna biha ba aaya bi yàlla di ko tëj mu ne ulaika kal an'am benn ulam benn borom xam-xamu tafsir kat nee na rabu àll yi dañoo def délégation ñëw ci yàlla ne ko yàlla tooñ nga ñu te yaa waxoon doo tooñ yàlla lu ma leen tooñ ñu ne yow yàlla nga bind nit yow yaa wax ne wala xat karam naa bani aadam yow yaa wax ne malaaka yi sax us usjudu li aadam nga defal doomu aadama lu ne may ko xel teral ko doomu aadama bàyyi place bi nga ko tegoon ñun bi ñu bindee ñu ngi ni ñun duñ sol yére mayoo ñu xel mu doy amuñu dara ngay xas doomu aadama par di ko nural ak ñun yàlla ne balhum adal yokk ci ziyaada bi balhum adal gis ngeen day tooñ nit ñi balhum adal nit tey moo rabu àll ñooyam nit li taxoon yàlla ne nit ah inni jaa'ilun fil ardi xalifa baat boobu xalifa nit daf ko wàcc nit dafa gëlëm réer li ko waral nag mooy fi mu waroon teg tànkam li ko waroon orienté li ko waroon jiite loolu la doomu aadama sànni ginnaaw soo xoolee tey dund doomu aadama yépp di nga xam ne doomu aadama yi ay njaay àll lañ ah ñu ngi ñëw ci waxu xasanul banna bi mu doon wax frère musulman yi gaayatul xayaa fil quran dafa xaaj nit ñi ñeenti xaaj al imaamu xasanul banna ci téere boobu mu bind lettre yi li nga gis mu ne maqasidu nnaas fi xayaat fa bayyana anna qawman hammuhum min alxaya al aklu wal mutaatu mu ne am na ci nit ñi ñoo xam ne lekk rek mooy seen mooy seen problème ak bànneexu lekk kese ak bànneexu nu ñuy def ba lekk moo tax gis nga fi mu nekk nii koom-koom gi dafa seer marchandise yi dëkk bi métti xoolal nit ñi lu ñuy jooy saaku ceeb bi dafa seer diwlin bi dafa seer marché bi neexatul kër goo dem problème am fa diggante jëkkër ak jabar marché bi neexul la li nga may jox doyul du ma ko yóbbu moo tax lekk rek nu ñu lekkee rek mooy suñu problème yàlla mu ne wallazina kafaru yatamattauna wa yaakuluuna kama taakulu l anam wannaaru maswan lahum wallazina kafaru yéeféer yi ñi gëmul yàlla dañuy bànneexu lan mooy bànneexu da ngay ut soxna nit day ut soxna góor day ut soxna d'accord ngeen ci loolu est-ce que xar mi ci kër gi kuy mi amul soxna am na soxna wala amul soxna muus mi ci quartier bi am na soxna wala amul soxna séq bi am na soxna wala amul soxna loolu yaag rabu àll yéen a fa tolloo ni ginaar gu jigéen gi amee jëkkër noonu nga amee jëkkër ni xar mu jigéen bi amee jëkkër nga ko amee ni muy lekkee ngay lekkee ni muy naane ngay naane ni muy sangoo ngay sangoo ni muy tëdde ngay tëdde ni muy nelawe ngay nelawe loo ko ëppaleeti ni ngay liggéeyee sax rabu àll bi noonu lay liggéeyee fas bi nekk fii di daw lu muy def saret bi nekk ci koñ bi di yóbbu matt yeeg yooyu lu muy def lu muy def liggéey day liggéey yaa ngi di liggéey day liggéey kon yow léegi loo ko taneetee yaa ngi lekk mi ngi lekk yaa ngi sëy mi ngi sëy yaa ngi nelaw mi ngi nelaw am nga kër am na kër au contraire sax am na ci rabu àll yi sax ñoo gën a féex nit ndax ñoom fi ñu tëdd la ñuy tëdd da ngay romb ñu ne la merde suñu ngooñ yooyu dabambaalu ni ci kër gi rek soo ba léegi ñun lekk ñu naanuñu waaw nga daw ñëw indi ngooñ mi mu ne la merde ndox nga defe ne yow mbee la la yox fekk danaa la merde ndox ñu naan waaye yow xam ngay lambar lambari nii rek ñun soo ba léegi naanuñu ndox parce que moom dafa gëm yàlla yàlla moo ne wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizq ku nekk maa lay dundal doomu aadama yi nag biñ ne yàlla yow doonu dundal yàlla mu ne dem leen di ngeen sonn de xoolal rab xar mi toog ci kër gi yaa yor léppam xataa ginaar gi xoolal muus yi muus yi fu ñuy liggéey bi ngeen nekkee ay sénégalais ba léegi yéen a ngi gis yaraax muus wala muus yi yeex nañ fi abadan dañuy yokk muus sax dafa sori kaña kaña yi dañ koy jeex ci biir kaaba gi laa toog ba caag rek benn ruus benn muus traversé ma dem ba ci ndoxum zam-zam toog di naan muus allahu billahi allazi la ilaha illa hu gis ngeen kaaba gi ni mu fay seeg nit maa toog nii muus yëg ci sama sijaada nii di dem faalewul nit ñi wala nii lay def ci biir sàppe yi nii keroog laa tiit ma koy xool di ko xool ba caag mu dem ci robinet zam-zam yi toog benn waaye defal ko kopp mu toog di naan ma ni ko fii de nit nekk fi muus dagan na am na
fii moom kuñ fi ne kaa ñu def la fi muus di nga fi bëgg nekk muus allahu akbar inna lillah la ilaha illa allah yàlla xam na ko kon nga xam ne doomu aadama war na ëppal boppam yemale boppam ak mala def yaramu neen di wër fu mu yegg si ñu ne aka rafet fas la jig fas mooy def yaramu neen du sol tubéy du sol mbubu awra yi nekk ci biti fu mu yegg si ñu ne eskay oustaz sa fas bi rafet na di di ko raay waaye xoolal tey ñan ñooy def yaramu neen bi ma wàccee léegi cafétéria dama ne nii rek gis jigéen bu Chris Karas du noonu lañ koy waxee Chris Karas jigéen bu Chris Karas ndeysaan silib bi nekk ci biti ngeen baal ma ci baat bi tubéy ji mu taf ko nii ko waaw sama yaram daw jigéen jigéen ak ni ko yàlla fonkee ak fi yàlla teg jigéen allahu akbar jigéen mooy magasinu yàlla jigéen léegi dem ba ah, yi nga xam ne moom la gënoon loolu la ñu waroon gën a nëbb léegi moom la ñu génne gis ngeen yéen a ngi nii toog dama mësoon defal waxtaan euh, cellule waa waa cellule féminine euh, vacances yi passé euh, jigéen ñi seen lan seen camp colonie bi maa defoon fourniture fourniture kii bi euh, collecture waxtaan bi keroog wax naa amira ma ne ko na ngeen def attention de ngeen mës a gis fii benn ibaadu rahman buy muuru am jëkkëru mbër ñu may reetaan ma xëy suba rek dégg am na benn mbër bu takk kuy muuru ci journaux yi déggu leen wax bu ma wax de déggu leen li ma wax de xam nga lu ko waral mooy ñun suñuy jubluwaay la ñuy fàtte lan moom tax a jóg su jigéen ñi réeree seen bopp ba jàpp ne mbër war na leen a takk musicien war na leen a takk rappeur war na leen a takk ku amul diine war na leen a takk juum nañ innal muslimina bi ngeen eggali wal muminina gis nga olof yi sax dañu ne dërëm ak dërëm ay dërëm ngeen mbokk yi dërëm ak duubal du naan bu ñu fàtte jubluwaay yi ñëwuñu àdduna pour lekk ñëwuñu àdduna pour noos yàlla nee na lekk ak naan bàyyi ma yi sax dañ koy def mu ngi nii kama taakulul an'am al an'am day lekk di naan mais ñun wees nañ foofu ah mu ngi noonu kulu wara an'amakum mataan lakum wa li an'amikum lekk gi yéen ak rab yi yéen a ko bokk ni ngeen koy defee lañ koy defee mais ñun wees nañ foofu suñu bopp ñun am na feneen fu mu toll mooy fexe ba nit doomu aadama egg ci yàlla tabaraka wa taala boobu benn kuréel la ñaareel bi mu ne wa bayyana anna qawman axarin himmatuhum azina wal arab am ñoo xam ne xam nga lu tax ñoom ñu nekk ci àdduna lu rafet rek bu dee góor la bu jigéen rafetee ñu ne ci ñun la war a nekk bu dee waruwaay ñu ne moo ko war a war bu dee dëkkuwaay ñu ne ñoo fa war a dëkk bu dee lekk ñu ne ñoo ko war a lekk bu dee naan ñu ne ñoo ñooñ tamit ñii borom bi wax na leen ne zuyina linnaas hubbu sahawaat من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن مآب قال برام لم لم حب الشهوات تارال نان دوم ادم بو گمول يالا كيدول جولي دنج كو تارال لان بانيخ بي تي نجك موي جيجين دنج كو كو تارالال اك اي دوم ah ak alal ju ne gàññ ak ay parkingu 4x4 oto ay fas ah wal qanatiril muqantara ay bac yu dul jeex ay compte yu tegaloo min az-zahabi wal fidda wal xaylil musawwama xaylil musawwama léegi nekkatul ay fas yu numéroté ay 4x4 la 4x4 boo gis am na numéro 8 8 tout ay numéro la am bu nekk dañ ko marqué beneen waaye mu ne wal xaylil musawama mooy fas yu numérité moo ne xoolal fasu PMI bu nekk da nga am numéro instant nga dégg bu ne yee benn paa bu ne 4 bi 4 bi day uh bu doon du 4 bi rek ma jàpp ko ma jàpp affaire bi benn 4 benn benn rek benn fas rek 8 bi 8 bi moom rek ci 8 bi la ilaha illallah te nga nekk ab julit nga jàng ñu ne man akala luqmatan min haramin la tuqbal lahu salata arbaina yawman nga jàng ñu ne kullu maalin nabata ala haramin fannaaru awla bi yonent bi ne benn dank ñu teg boolu ceeb nga tibb benn dank fekk yaa ngi ko gañe ci pay mi nga lekk 40 jours boo jullee yàlla du ko nangu 40 jours boo jullee yàlla du nangu sa julli léegi nag nga bëgg dëkk ci lool Saad ibn Abi Waqas jàngeen ci histoire ngeen dégg fii tey mag benn mag ne la nag ma ñaanal ñaanu xaas lu ngeen dégg loolu oustaz ñaanu xaas laa bëgg ñaanu xaas loolu lan lañ ci jublu xam ngeen lu ko tax a jóg du ñaanu xaas de ñaanu Saad ibn Abi Waqas Saad ibn Abi Waqas kenn la woon ci yaayam yaayam nekk yéeféer mu nekk jullit te dafa bëgg yaayam yaayam bëgg ko lool yaayam gëmewu ko moom gëmewul yaayam mu dugg ci diine mu ñibbi si jóge ci yonent bi ñëw seen kër yaayam woo ko ñëw mu ñëw yaayam ne ko dégg naa da nga gëm Muhammad mu ne ko waaw yaayam ne ko foog nga bàyyi Muhammad mu ne yaay lu tax mu ne du yow yaay da nga gëm Muhammad te Muhammad yàlla ji koy jox alquraanam boobu su waxee ngeen dégg mu ne waaw yaa ji daal di koy indil aaya alquran yaa ji indil ko ab aaya ban aaya la ko yaa ji indil aaya bi yàlla tabaraka wa taala naan ginnaaw man yàlla ba ma wéyee sa ndey ak sa baay mu ne ko te man pour nga topp ma nga déggal ma foog nga bàyyi Muhammad comme munu tontu mu ne ko xaar mu ñëw mu daw dem ci yonent bi ne ko ah mbir am na de yonent bi ne ko lu am mu ne ko sama yaay nee na naa la bàyyi te alxuraan la ma indil ay daal di wàccaat wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma waaye wa saahibhuma fi dunya maaruf gis nga alxuraan wa saahibhuma fi dunya maaruf nan laay def fan laay ci lan laay bokk mu ne wattabi sabila man anaba ilayya jaaral yoonu gaa yi nga xam ne dañoo jaar yoon wi jëm ci man saak xamul lu muy wax yaayam parce que daf ko bëgg mu ne yonent xam nga lu xew man mënu ma bàyyi sama yaay de léegi xam nga nooy def yoon dina ko am ne da ngay ñaan yàlla sama yaay dugg ci lislaam yonent bi yëkkati loxoom ne allahumma hadi umma saada yàlla yal na nga jubal yaay saad saad ñibbi yaay ji ne ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah rek saad daw di kontaan loo ji yaayam pap yonent bi daw dem ci yonent bi di ko kontaanloo di kontaanloo yonent bi ne yonent sama yaay dugg na ci diine comme gis na yonent bi ñaan yàlla nangu mu ne yonent ah am na lu ma bëgg de yonent bi ne ko lan la mu ne ko dama bëgg ni nga ñaanee yàlla may la nga ñaanal ma yàlla may ma su ma ñaanee rek yàlla nangu comme yow da ngaa ñaan rek yàlla nangu ñaanal ma man tamit su ma ñaanee yàlla nangu yonent bi ne ko loolu duma la ko defal yow dong jullit yëpp laa koy defal mu ne waaw yonent loolu nu mu nekkee man dong ma taxaw fii ne la dama bëgg soo ma ñaanalee lu ma ñaan yàlla nangu nga ni jullit yëpp nga koy defal mu ne ko saat aturidu an takuna mustajabu daawa da ngaa bëgg boo ñaanee yàlla nangu mu ne ko naam mu ne ko at im mata amaka at im mata amaka li ngay lekk na dagan saa yoo lekkee lu dagan soo ñaanee yàlla nangu ak ngeen saat mujj na ci mujj dundam su ñaanee yàlla may mu silmaxa doom yi ne ko papa ñaanal yàlla yàlla delloo si la say bët mu ne leen déedéet dégg naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne képp ku yàlla nattu say bët silmaxa nga muñ ko noonu ba dee yaa man yéenay bokk dëkkuwaay mu ne yonent bi laa bëgg a bokkal dëkkuwaay bàyyi leen ma ma mel nii ba ëllëg kon alxuraan ñi mu yaroon démb ak sunna mënuñu yem tey ak ñi nga xam ne Karl Marx moo leen yar Jean Paul Sartre moo leen yar Fried moo leen yar Lénine moo leen yar ah ci cirque lañ leen yar ci bidaa lañ leen yar mënuñu nekk benn wallahi mënuñu nekk benn ñee xool leen la ñu génne ñii xool leen li ci génn wala kii léegi-léegi gaynde gi ñëw ba nii mu ngi naan ko nii ba gaynde ga jaar ne lan la yoon di wax ci loolu la ana allahu man massala bil xaywaanaat yal na yàlla sori yërmande la ana allah man massala bil xaywaanaat yal na yàlla sori yërmande nit ki dem di nurur nurur rabu àll yi xaywaan yàlla ne wala xad karam naa bani aadama doomu aadama la mu ko teral doomu aadama di toppandoo di toppandoo rab wala mu toppandoo sax nit mu toppandoo rab mu dem nekk rab di daw ci mbedd yi nit ñi di daw di ko topp kon beneen adduna la nekk mbokk yi am na ñeneen ñoo xam ne wa bayyana anna qawman axarin sha'anuhum fi lhaya iqaadu lfitan wa ihyaai surur wal mafasid am na ñoo xam ne ci seen dund ñoom taal fitna rek lañ bëgg ñoom affaire u lekk yitteelu leen adduna yitteelu leen ñoom taal fitna rek adduna bi bu fi jàmm am gis nga yàlla tabaraka wa taala xaaj bi mu xaaj nit ñi am na ñeneen nag ñoo xam ne beneen catégorie boo xam ne ñooñu yàlla dafa jël sars sas teg seen loos yàlla sant leen ne nañu baaxal aduna ci seeni kaw ala atiqihim waajiban asma zalik al waajib huwa hidayatul bashar ila al haq ñun ak yéen ñëpp ci ñooñu lañ bëgg a bokk ñoo xam ne ñooy fexe ba nit ñi teguwaat ci raay bi waaye du nekk lu yomb de doomu aadama pour nga jàpp ci loxoom yóbbu ko ci boroomam du nekk lu yomb foog mu nekk lu metti foog mu nekk lu jafe foog mu nekk lu diis ndax ki ngay yóbbu buggut a dem ki ngay yóbbu buggut a dem waaye ci kàttanu yàlla loolu soo koy def da ngay sukkandiku ci yàlla ak di yëngatu ndax yàlla tabaraka wa taala hidaaya rek la bëgg ci ñoom wa irsaadu naas jamian ila al xayr ñu fexe ba doomu aadama yëpp mboolem doomu aadama nekk ci lu baax ñooñu la yàlla di wax ci quran ne ya ayuha alladina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu lxayra la'allakum tuflihun wajahidu fi llahi haqqa jihadi huwa اتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمون من قبل ñooñu la yàlla di wax ci quran ne yéen ñi gëm yàlla julli leen rukoo leen sujood leen jaamu leen seen boroom def leen lu baax ndax ngeen texe wafalul xayra laallakum tuflihun na ngeen def lu baax ndax ngeen texe yonent yàlla muhammad mu ne alxayru kasir waaye wa qalilun failuhu lu baax lu baax dafa bëri waaye day néew ñu koy def tey lu baax ak bëri loolu ñu naan lu baax loolu ñu naan mbaax soo ko doon wàññi kenn xamu ko mais ak néew tey ñu koy def dafa mel ne doomu aadama yi dañ leen tàggat ci def lu bon au lieu ñu tàggat seen bopp ci njëkkante lu baax mais lu bon la ñuy njëkkanti soo xoolee jamono bi nga dégg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li mu wax ne safara mooy ëpp aljanna ay nit nga xam ne dëgg la tey tey waxuma sax adduna bi mais suñu réew rek suñ la doon wax lu bon ak lu baax lu ëpp looy wax looy tontu mais xam ngeen lan mooy wax ji mooy man naa fexe ba bokk ci mbaax loolu mooy wax bi ku nekk sa bopp fexeel ba nga bokk ci mbaax waaw sanaanu qawmin ala an la taadilu idilu yéen fexeel yéen ba ngeen bokk ci mbaax yéen bul kenn ne ñoom diw diw xam naa ko ci quartier bi la nekk nangam ak nangam nii la mel kon déedéet fexeel yow ba nga baax benn borom xam-xam bu doon firi hadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ne ñetti nit dañoo dem ci àll bi guddi wala bëccëg biñ demee guddee nañ amuñu fu ñu fanaan ñu gis benn pax benn xunt ñu dugg ci pax mi ne nañ ci fanaan bu bër set bu ñu xëyee ñibbi yàlla def benn ngelaw li daal di riddi ngelaw lu foor daal di bëmax benn xeer doj wu rëy doj wi daal di ñëw daal di tëj bunt bi ah musiba daal di am ñoom ba ñu nekkee ci biir amuñu doole amuñu kàttan amuñu pexe lu ñu ubbee xeer bi amuñu ko lan lañ wax seen bopp kenn ku nekk ne nañ def tawassul ci sunu jëf yu baax yu ñu defoon démb ngir yàlla tabaraka wa taala dimbalinu ngir yërëm nu ngir ñu mën a génn tey ci xuntu mii loolu nu muy nekkee ñu ne kenn ku nekk xoolal lu baax loo defoon ngir yàlla kenn ki ne man dey amoon naa ndey ak baay sama ndey ak sama baay ñu ngi doon dund dama daan def ne bu guddi jotee su ma demee ci gétt gi ratt ba pare balaa samay njaboot di lekk sama soxna wala sama doom sama ndey ak sama baay ñooy lekk ba desal ma doog a indil sama njaboot benn bis ma dem ratt di ñëwaat guddee naa ma ñëw fekk sama ndey ak sama baay tëdd te bëgguma leen a yee ma teg noonu reer bi sama waa kër di jooy ba nelaw ba fajar jot reeruñu ba sama papa ak sama yaay ñoo yeewu reer ba pare ba mu des ma déglu na indil fekk jooy nañ ba sonn yàlla bu fekkee loolu ma defoon yow yaa tax nag ñu dimbali xeer bi daal di ubbeeku pour ñu génn bi waa ji waxee loolu daaneel rek xeer bi daal di yëngatu ñuy seen lumière loolu lu muy tekki kon waa ji kon waa ji li mu defoon yàlla nangu na ko ixlaas la keneen ki daal di ñëw ñaara ci des xoolal keneen ki daal di ñëw daal ne man amoon naa benn xale bu jigéen bu ma bëggoon ma topp ko ay at pour séq ak moom ndaw si bañ benn bis ma wéet ak moom bi ma ko jekkoo ba ndaw si tolloo ci xat-xat ñëw am lu ma laaj ma nangu ko koo jox ba ñun ñaar ñu wéet dara desul lu dul tëj nañ bunt bi wàcce rido bi tëj fenêtre bi wàcce rido bi fay nañ lampe bi ñun ñaar rek mu ne mu ne ma ndaw si ne ma ragalal yàlla ci man bul laal lu la lewul bul laal lu la lewul nee na waa ji ne dama tiitu sol sama yére ubbi bunt bi dem sama yoon mu ne loolu bu fekkee yàllaa taxoon ma def ko tey yow yàlla nag ñu ubbil xeer bi xeer bi daal di yëngatuwaat waaye mënu guñoo génn ba léegi kon kooku tamit li muy tekki mooy li mu def yàlla nangu na ko keneen ki daal di ñëw daane man amoon naa ñu ma doon liggéeyal ay surga saa ñu ma liggéeyalee bu weer dee ma fay leen benn bis weer dee ma fay leen ñëpp kenn ki daal dem bàyyi ma ak fayam xaw ma fu mu nekk mënu ma koo wër jox ko ko gisuma ku ma ko yóbbanti fay boobu ma daal di koy jël jënd ko ay jur ma def ko ci kër gi jur yi daal di jur dëkk bi yëpp ba mu fees del benn at rek waa ji daal di ñëwaat ne ma xam nga ma mu ne ko déedéet mu ne ma yaa ma doon liggéey loolu ba weer dee ma dem bàyyi fi sama fay fay bi laa jël si waa ji ne ko xoolal xar yi jur yi yëpp yaay borom mu ne ko non bu ma fontoo waay man da nga ma waroon fay mu ne ko waaw sa xaalis boobu laa jëloon jënd ci xar yi ay xar yu ndaw rek ay jur yu ndaw rek jur yooyu ñoom ñoo jur lii lépp kon yow yaa moom lii lépp yóbbul waa ji daal di buub lépp yóbbu bàyyiwu fa sax mbote mbote moo gën a ndaw bàyyi lu ko waa ji loolu bu fekkente ne yow yàlla yaa taxoon dong ma def ko yàlla ubbil xeer bi rek xeer bi daal di bërëngu daal di dali fële ñoom ñett ñu daal di génn ñoom ñaata lañ woon ñett bu doon ñeent lañ te kenn ci ñun fii yaa leen ñeenteel looy ñaan déggu leen sama wax de man ni ñooñu ñett lañ woon ba ñu ñaanee yàlla nangu na ko bu doon ñeent lañ kenn fi ci jigéen ñi yaa leen ñeenteel wala fekk kenn fi ci góor ñi yaa leen ñeenteel looy ñaan yow bàyyi naa tontu bi ak kenn ku nekk sa bopp bu ñu doon ñeent te yaa leen doon ñeenteel yow yaa war a ñaan rek xeer bi ubbeeku allahu akbar loolu moo tax ñu war a bàyyi suñu bopp xel ci góorgóorlu ci ay jëf ci ay ibaadaat ci ixlaas ci sellal lu ñu mën même bu dee marra waahid nga sellal sa digganteeg sa borom même bu dee benn bis loo xam ni danga ciy génne lépp yàlla rek même bu fekkoon ne sax baatu laa ilaha illallah ngay wax benn bis mu nekk xaalis lillah nga def loo war a sax la sax loo war a sax guddeeg bëccëg loo war a sax mbokk yi alquranul karim mooy ñi defaroon démb mooy ñi war a defar tey sunna yonent sallallahu alayhi wa sallam moo defaroon démb gaa yi tey jii bu ñu bëggee baax foo ñu delluwaat ci sunna yaraat suñu bopp pour ñu delluwaat ci ay valeur yu rafet yoo xam ne mu ngi bàyyi koo kaw asamaan suluk boo xam ne min as-sama la min al ard valeur yoo xam ne duñ ko jëlee fii ci kaw suuf ndax valeur yi ñuy jëlee ci kaw suuf day deñ day dajjeeku dara dootu ci fi des loolu moo tax yàlla tabaraka wa taala mu ne valeur yi ngeen di doon ci kaw suuf fi ngeen koy bàyyi valeur yooyu mooy lan bëgg alal bëgg daraja bëgg ndomba tànk bëgg bëgg bëgg yooyu fii lay des gis nga ndomba tànk buñ la takkal bis boo nee bis buñ nee dee nga dañuy tekki ndomba boobu teg fële takkal ko keneen doo ko yóbbaale wala moo tax kis ki di wax ne fa kam min malikin rufiat lahu alamat fa lamma ala maat fa kam min malikin ñaata buur ngeen gis xoolal rek mubaarak fu mu tolloon Moubarak fu mu tolloon ci pouvoir ci ci doole tey muusi Égypte yee ko tane ndax muusi ñeme nañoo circuler moom ñemewu ko ah doomu Adama war na bàyyi xel boppam. lenn dong mooy tax nga am jàmm àdduna mooy nga jubóog yàlla bu dee góor bu dee jigéen nga jubóog yàlla. sa ñàkk jubóog yàlla fitna la lay indil ci kaw suuf boo demee alaxira foofu la coow li gën a ëppee loola tax valeur yooyu nga xam ne mooy tax doomu aadama baax qiyamun wa suluk nga xam ne yaa ngi koy jëlee ci sharia yooyu la yàlla wax ne shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuuhan walladi awhayna ilayk innama huwa wahyun yuha wa zikrun liman yuridu an yatazakkar wa hidaya liman yuridu an yatabassar sharia boo xam ne doomu aadama mu ngi koy jëlee fan ci njubal yàlla tabaraka wa taala mbaax goo xam ne yaa ngi koy baax ngir yàlla baaxoo ñu ne ngir da ngaa baax déedéet lu tax ngay baax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk na fi mbaax fekk na fi mbaax de fekk na fi gaa yoo xam ne seen kër yi cin yi du fay waaye xam nga ñooñu lan moo taxoon ñuy baax doomu aadama yi xam nga lu taxoon ñuy baax mooy ngir ñu ne diw dafa baax moo tax yonent bi ne innama bu istu li utammima makaarimal axlaaq kon fekk na fi axlaaq mais dafa ñëw pour mu nekk ngir yàlla mu nekk ngir yàlla wax yoo xam ne day nekk zikr pour doomu aadama di ci fàttaliku pour xam fu muy teg tànkam pour jub loolu tax alquran ñëw pour lan li yahlaka man halaka an bayina wa yahya man hayya an bayina kii kii dund na dund ci lu leer kii réer day sànku ah fallazi yu dillu yu dillu ala ilmin wallazi yanharif yanharif ala amdin wallazi yatalawwa fi sulukihi yatalawwa an qasdin kii jub day jub ngir yàlla kii réer day réer ngir boppam ndax mbir mi leer na ba pare su fekkee mbir mi leer na fa maza ba'da al haqq illa illa dalal ginnaaw dëgg naka la doomu aadama di gisee dëgg xam nga tey li am Sénégal nga gis kenn ku ne wax dëgg yàlla xam naa ne lii mooy dëgg man kay xam naa ko dëgg gi moom wax non non mooy mbokk mbokk non xam naa mbir mi leer na waaye nag inna lillahi wa inna ilayhi raji'un léeg-léeg nga dajeeg nit ci quartier bi ci koñ bi mu ne wallahi li ngeen nekk mooy dëgg kon moom li mu nekk lan la waaw léegi nga xam ne yow lii mooy dëgg loo tere jël dëgg gi wallahi gëm naa ne alquran mooy dëgg sunna mooy dëgg waaye nag waaye nag gëm naa ne jigéen dafa war a muuru waaye nag gëm naa ne jigéen dafa war a muur ay awraam waaye nag nag de sonn na nag naa war naa indi ay béjjinam rek di mbëkke ku wax rek ne ko yow waaye nag inna lillahi wa inna ilayhi raji'un doomu aadama war na bañ loolu waaye mooy loolu waaw waaye mooy waaw waaw bu dee xale yu góor yi moom dañ naan non loolu mooy yéen a nekk ci dëgg waaye nag mooy loolu mooy loolu mooy lan loolu lan nañu góorgóorlu waat mbokk yi ñu defaruwaat defaru gi mooy ñu delloo suñu bopp fi yàlla tabaraka wa taala bëgg ñu delloo suñu bopp defaruwaat gi mooy lan li yàlla bëgg nu mel nan ko mel balaa nuy dee moom l'islam boobu dafa ñëw pour xiyam yi jikko yi yooyu nga xam ne ci fii lañ ko fekk doomu aadama yi ndono la pour ñu defal ko ay valeur muy yàlla na tax ndax jikko yi nga xam ne yàlla moo la koy may valeur yi la yàlla di may yooyu du deñ yooyu da ngay ànd ak moom dem àllaaxira amma yi nga xam ne fii nga ko fekk day dajjeeku yépp ay deñ moo tax yàlla mu nañu qul in kaana abaukum wa abnaukum wa ixwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu wa tijaratan taxsawnaha taxsawna kasadaha wa masakina tayyibatan tardawnaha ahabba ilaykum min allahi wa rasulihi wa jihad fi sabilillah mu ne fatarabbasu hatta ya'ti allahu bi amri su fekkee seeni baay moo leen gënal yàlla seeni baay moo leen gënal yàlla leneen nga dégguñ ku ne sunuy baay li lañ leen fekkee ci la ñuy dee sa baay moo la gënal yàlla yàlla nee na jàppal ci sa baay ba nga yegsi ci man ëllëg wala say doom di nga gis borom kër goo xam ne waa këram dañuy def lu bon mu ne miig noppi parce que lan boo waxee mu ne non ay xale lañ rek bu ñu màggee mu dañ yonent bi ne laa yadxulul janna di yuus dayus du dugg àjjana sahaaba yi ne ko man huwa dayus ya rasulallah mu ne allazi yaqirru su fi ahlihi wa fi riwaya allazi yarda alxubusu fi ahli borom kër goo xam ne sa kër dañuy teg ay film porno ci télé bi wala ay xale yu góor ak yu jigéen di nekk ci kër gi ba une heure du matin deux heures du matin nekk ci benn néeg yow nga tëdd waaw boo waxee ñu ne ah ay xale yu jigéen lañ foog góor seet si leen ay xale yu góor lañ foog jigéen seet si leen waaw ndax aduna bi tey aduna kanaara la doom yi ñooy nekk ci kanam waajur yi nekk ci ginnaaw te ñu jàng ci quran yàlla mu ne qu anfusakum wa ahlikum naaran musal leen seen bopp safara musal seen njaboot dafa am benn góor doom ji dafa jóge Europe ndeysaan ñëw tëdd di nelaw fajar góor gi gisu ko mu ubbi bunt bi góor gi ba jàkk bañ ne asalaatu xayru minan naw mi jógul paa bi jóg fëgg bunt bi këng këng këng këng mu ne ko lan la mu ne ko jógal julli mu ne ko laa ikraha fi diin mooy diine kenn du ci forcer nit paa bi ne ko qu anfusakum wa ahlikum naaran wekk bunt bi teg na ko jógal julli waaw ku anfusakum wa ahlikum naaran gis nga waaw waaw ku bañ ku bañ ku bañ say doom poñe la ku bañ say doom mere la yàlla dina la poñe ëllëg mere la kon ñii mere la boo gën yàlla mere la de wala non damay bañ kër gi dama bëgg yàlla moo la ëpp yërmande bis boo bañee sa soxna mere la am na ñoo xam ne ci ñun ñemewuñu yee seen soxna fajar jógal julli au contraire sax soxna si da lay tere julli ji fajar jàkk da ngay dégg asalaatu xayru minan nawm nga bëgg a dem soxna si ne la hmm. nga tëddaat nga xëcc mbaaji mi tëddaat bisa ngi ñëw soxna si dana yuuxu ba ñëpp ñëw mu ne jël leen yóbbu jàkka ja déggu leen li ma wax de ku sa soxna teree dem jàkk bisa ngi ñëw dina yuuxu ba ñëpp ñëw mu ne jël leen yóbbu jàkk ba su boobaa nag jàkk ji dootu la soxla heure boobu jàkk bi dootu la soxla est-ce que dégg ngeen li ma wax soxna yi bàyyi leen mbokk yi ñu dem jàkk képp ku tere dem sa àllaaji jàkk bisa ngi ñëw dinañ ko génne yóbbu ko jàkk te su boobaa jàkk ji ne ma kaana lahum an yadxuluha illa xaifin mbokk yi ci yàlla laqad kaanat himmatu rusul rasul an yaj'ala mujtamaahu wa ummatahu tattafiru min qiyami azaifa ila qiyamin oxra yonent yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam dafa sonn ci xeetam ngir ñu dugg aljanna dafa sonn ci xeetam pour ñu sori safara moo tax mu ne bi ma yàlla yónnee man yonent damaa jël sama kaala takk sama ndigg wàcc ci terrain bi mu ne bi mu koy misaal dafa ne maa ngi mel ne benn waay bu dem ci digg àll ci digg nawet ci nawet benn waay bu dem àll ci nawet mu taal safara mat boo taalee safara ci nawet ci àll gunóor yi nan la ñuy def gunóor yi dañuy ñëw di bëgg a dugg ci safara si bal yenn saa yi sax gunóor yi dañuy dugg dee lakk yonent bi nee na man maay ki nga xam ne maa taxaw ku bëgg a dem safara ma téy la ne la bul dugg fii du pour yow fii du pour yow yow aljanna nga war a jëm kon jot na mbokk yi ñu takk suñu ndigg góor ak jigéen xandoor bi yàgg na nelaw yu metti na nañu takkaar sunuy ndigg duggaat ci kër yi duggaat ci mbedd yi duggaat ci dëkk bi yee jullit yi jullit yàlla sàkke na ko ci kaw suuf lu dul simb lu dul bëre lu dul football lu dul musique lu dul rap lu dul lu dul lu dul comme ni ngeen ko xamee yàlla sàkk na jullit lu ëpp loolu yàlla indee na doomu aadama ci kaw suuf lu raw li doomu aadama nekkee doomu aadama war na ëppal boppam foo ak caaxaan doomu aadama war na ëppal boppam ci foo ak caaxaan wa ma xalaqtu l jinna wal ins illa li yabudun dafa am benn góor dafa am taalibe benn sëriñ bu am taalibe benn bis mu bett taalibe bi ci këram rek mu ñëw fekk kër gi am soirée ci biir mu am mbetteel moom sëriñ bi yaakaarul woon ne sëriñ to taalibeem bi noonu la mel ndax buy gis taalibe bi di koy gis ci melokaan bu rafet bis bu nekk taalibe buy ñëw ci moom day sol yére bu rafet dóor koppati soxnaam muuru mu xeeñ parfum yor kaamil yor kurus mu ñëw rek fekk soirée ci biir kër gi mu fëgg taalibe bi ubbi nag gis sëriñ bi rek tiit daal ne sëriñ naa ne sëriñ ne ah ma ne dama la ziar si mu ne ko non sëriñ léegi xam nga ñu def dama lay delloo paas ba jëlal la taxi nga dem ba beneen yoon tey dama ko xaw a kii sëriñ bi ne ko déedéet tey moom ziar xaas sa rek xaas salaka yow rek mu ne sëriñ ma baa ma jox la 10 000 nga dem sëriñ bi ne ko déedéet sëriñ bi daal di pousse buntu bi daal di dugg ñëw ba ci soirée bi rek mu toog gars it gars yi yéemu xam nga am na koo xam ne su duggee ci mbooloo tey waruñu ko yaakaar ci mbooloo mi te waruñ ko faa fekk ci mbooloo mi waa mbooloo mi ni ñuy def dañuy jaaxle lépp luñ doon def dañuy taxaw rek gars yi daal di arrêté sëñ bi ne àll leen ma micro bi ñu jox ko mu ne toog leen ñu toog mu ne ndax mbooloo mi am na ñu ci jàng alxuraan am na ñu ne ah kenn de man de wàcc naa kenn de man de miin naa kenn de man de sori naa kenn de man de ku nekk rek xam nga sénégalais sénégalais yi moom koo gis jaar na ci daara mu ne kon nag dama bëgg jàng alxuraan bu ma juumee na ngeen ma gàgganti ñu ne waaw bismillah sëriñ bi ne aouzu billahi min alshaytani irrajim bismillahi arrahmani irrahim wa ma xalaqtu aljinna wal insa illa liyalabun ñu ne ko du noonu de mu ne nan la ñu ne illa liyabudun mu ne ah li ngeen nekkee lan la illaa li yalabuun ak illaa li yabudun du benn de wa maa xalaqtul jinna wal ins illaa li yabudun moom mu ne illaa li yalabuun yàlla daa bind nit ak jinne pour ñu fo ñu ne ko déedéet sëriñ déedéet yàlla daa bind nit ak jinne pour ñu jaamu ko mu ne yéen li ngeen nekkee lii lan la yéen ci lan ngeen nekk yaa ngi ne ko fo mu ne ah yàlla nee na binduma leen pour ngeen fo yéen ngeen ne ci fo ngeen nekk yéen am ngeen fitan mais yéen ñeme ngeen a ku toll ne yàlla ne binduma leen pour fo afa hasibtum annama xalaqnaakum abathan yéen ngeen ñëw ñeme concours fo ñeme organiser fo te yàlla ne binduma leen pour fo damay laaj fii ci baas bi laaj boo xam damaa bëgg ñëpp tontu lan moo tax yàlla bindunu da ngeen a bañ a tontu waaw ma laaj góor ñi lu tax yàlla bindunu lu tax yàlla bindunu liñ nekkee léegi Sénégal lan la kon nan delloo suñu xel waxtaan bi ñu ngi koy tënk fi incha allah bàyyi oustaz mu mottali ko li ci jub ci yàlla la li ci manqué ci ñun ñii la ñu ngi koy jégglu di ñaan yàlla mu def ci ñun dégg ak topp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
ñemewuñu yokk ñemewuñu li ci li mu doon wax xanaa rek di ñaan yàlla sàmmal ko mémoire am maanaam xelam te mu yàgg a taxawee yàlla branché ko wér amiin yaa rabbal aalamiin.
defal ko mbooleem ku nekk ci toolu lislaam sans commentaire xam ngeen ne mbokk mi li mu indi tey mooy daf ñu ñëwoon tegoon ñu ci balance ñu posé ci balance u l'islam maanaam ñun est-ce que posé nañu suñu bopp est-ce que valorisé nañ suñu bopp est-ce que dimensionné nañu suñu bopp maanaam ñun xam nañu ñuy ñun ñooy kat xool leen yàlla bu ne yéen jullit yi kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas dama leen sélectionné loolu la yàlla wax dama leen tànn maanaam kuy julli rek yàlla ci mbaaxam moo la convoqué tànn la li naas yi waxul mina naas yi xam nga mënoon na wax ne kuntum xayra ummatin uxrijat mina naas yéen dama leen sempi ci nit ñi loolu loolu la déparé dama leen tànn mu ne waaye li naas pour ngeen nekk njëriñu nit ñi loolu nag lu rëy la tànn gu jëkk gi mooy tànn gim ñu tànnoon ci kanam malaaka yi malaaka yi ne ko mais yàlla li nga def est-ce que defoo erreur parce que ñii nga tànn am na lu ñu xam ci ñoom ndax nee nga zalum lañ jahul lañ dañoo réer te itam tooñkat lañ te ñun mosuñu laa mooy est-ce que dootoon baax nga tànn koo xam ne dafa mel ni ñun yàlla jox leen benn document ñu xool document bi ne ko subhanaka la ilma lana mooy lim doon wax sànq rek muy feuille de route bi nga xam ne moom la ñu yàlla tàllal muy alquran karim mu ne aadama liiral document bi mu liir mu ne leen alors lu ma leen waxoon waxoon naa leen ne dama leen tànn ci ngir capacité intellectuelle bi nga xam ne moom ngeen am maanaam nit li ko yàlla doon tànne mooy anshaakum fil ardi wastaamarakum fiha dama leen tànn pour ngeen valoriser àddina bi defe naa ne tey bokk na ci njëriñu doomu aadama tey waxoon na ko sànq ay fas lañ doon yeew mais tey ay 4-4 ak ay 8-8 la ñuy yeew ak ay lagonaak ay yeneeni xeetu oto yoo xam ne ñu ngi koy dajale ci ay parking bokk na ci tey système bu bees bi xew muy système satellitaire ñu koy tuddee système numérique nga xam ne tey damay toog fii rek siraaju nekk Paris ñu jàkkaarloo di waxtaan mu naan ma kooku toog ci sa wet sa doom ji la boo xam moom mi ne wuy sa papa ñuy wax nga xam ne tey àddina bi dañ ko tudde benn petit village loolu aussi bokk na ci njëriñ bi waaye nag yàlla daf noonu pour ñu jàmm maanaam loolu dañ ko war a def ngir faciliter taasu jaamu yàlla tey dem màkka dootuñ fanaan àll mais dañuy xëy rek atterrir rek ca péelu màkka ci ay nga gis ku jóge fii jëm Casamance ci biir Sénégal benn waay départ fii jëkk la Paris te yow àggagoo sax Thiès donc loolu bokk na ci li tax yàlla faloon doomu aadama muy teraanga boo xam ne tabarkal waaye biñ ko defaree ba pare gis ngeen ne ay kënu ay missile ay sol-sol moom la ñu ut ba pare di ko détruire di ko yàq gis ngeen nit ñi tey agression bi du ma dem fu sori mais ci suñu réew rek kenn ñemeetu la génn sol yére bu baax di àjjuma démb su ma fàttewul bark démb la am benn waay bu ñëw ne dañ ko agressé nangu parce que nee na benn kii moo gaare benn oto clando ne ko foo jëm mu ne non man dew ma gars yi tijji oto bi wëñ loxo bi dóor ko nangu portable am jël saagam taal oto bi dem mu ñëw ak ay skat ay gajj gajjam ak yow ne pour day ñaan ñu jàppale ko am ñu ne eh est-ce que kii du bandi ma ne déet comme gis ngeen ni mu mel mais nañ ko yalwaanal rek lu ñu am rek ci jumaa ji ñu jàppale ko li ma bëgg a feeñal foofu rek mooy ñàkk dund diine exemple mooy muus mi mu doon wax sànq xam ngeen ni fii ci Sénégal fii ci Yaraax ci li ma xam te dund ko ak xale yi muus ñemewu la romb ci mbooloo lu dul aw xël lay romb parce que xale yi fu ñu gis muus rek dóor la ñu xam mag moo gisit mu ne dóoral mu dee muus mi muus mu bon mi mais foofa baladul amin la ko yàlla tudde maanaam dëkk la boo xam ne yàllaa ko sécuriser nit ñi dañu gëm yàlla weñ sax ñemewuñ ko rey xam nga sooy aj boo xesee ne nga rey ab teeñ lan moo la ci war da ngay woor ñetti fan kon yàlla nee na hadal baladil amin dëkk bi dama ko sécuriser te dëkk boobu la ñu war a bëgg nag dëkk yépp mel ni mag gis ngeen ne àddina bi tey buur yi nekkatuñ ci jàmm bu ñu fi falee ministre nag la ñuy rey ay mbokkam di woote di téléphoné def ko feet mais bés bu ñu ko follee day mel ni dëj ñuy jooy loolu yépp li ñu xamul mooy ne diine dafa ñëw pour nekk jaamu yàlla goo xam ne nit ki lépp lu mu ciy def da koy def ci baynal xawf wa raja maanaam di tiit ci responsabilité bi ñu ko jox est-ce que mu ngi koy doxal ni mu ko war a doxale wala déet waaye du ko jàppe mukk comme ni mu ko waxee sànq ah xaalis moom moom xaalis moom dootuñu jaaxal dëkkuwaay nekkatul suñu problème nga xam ne dem nañ bene rongoñu baadoole mooy siim cere buur gis ngeen ne buur bu ñu fal tey kuñ fi fal dañ lay loger jox la oto maanaam jox utal la lépp jox la carburant doo fay dara doo fay location xaalis boobu da ngay fayeeku rek di thésauriser di rënk jamaa maalahu wa addadahu yaxsabu anna maalahu axlada waaye yàlla lam ca teg mooy kallaa mbir yi du demee noonu day jékki benn bés rek ñu rocci la ci sa kaw lal dugal la ca wonago walla ca morgo te morgo yi oustaz léegi boo fa demee nit ñi dañu ragal morgo bi du ñu bale morgo ba ay lënd nga fay fekk wala da ngay ubbi rek kañe yi tëb wala janax yi tëb bala lënd yi sëlëm sa xar kanam bi ñun dem nañ ci benn morgo boo xam ne keroog bi ñu demee avant ñuy kii dañu teg kii bi nettoyé morgo bi raxas ko ba pare soog a dugal néew bi nga gis fañ lañ mujjee kon li wóor te wóor waaj jot na ku waajul des na la waajal te ku ñuy waajal dootoo waaj wax na tuuti ci nit ñu occidentalisé ak nit ñu nit ñu soppee ay golo ci maanaa rek te xam ngeen ne nit bu demee ba yaramam ni mu sacré jigéen ni mu nekkee lu tedd ca yàlla yàlla utal ko emballage bu rafet utal ko jalbaab comme jilbaab moom mooy bu bu am capuchon mu ne bu kenn gis dënnam wal yudribna xumurihinna ala juyubihinna nañu fermer seen catu poche yi dënn yi ba bu seen dënn feeñ tey nga gis nit sañ a romb ne xool leen sama ceeg down maanaam tey bàyyee naa la gannaaw gi ti set am na borom am na nu ñuy war a soloo loo xam ne nii da ngay tegu ci temps bi loolu yëpp day wane rek ne dañu dañoo yàq te tey ay Fatima ñoo koy def kon loolu dafa jot ñu tuub dellu si ci lislaam mbokk mi li mu wax rek mooy fa tuubu ilallahi jamian ayuhal muminun comme ni ko yàlla wax yéen jullit yi tuub leen te dellu ci yàlla am na loo xam ne tey phénomène la muy muuraay nit ñi def ko phénomène te du phénomène maanaam du lu njomblaan du lu yéeme waaye yàlla moo ko sant jullit bu nekk waaye ñàkk a muuru ci jamono ji man seetlu naa ne amul kii kañ dafa muuroo mèche kii muuroo voile parce que ki jël juróomi paquetu mees wala jël périgam ni mu diise nga xam ne matière bi synthétique la produit chimique la soo ko dëppee ci sa bopp yaa ngi ong sa bopp bi di jël ay bic ak ay kii di ruux ngir teeñ yu bari kii nga xam ne day afwa boppam ba mu liis mu jël voile bu oyof parfumé ko dal di ko sol nekk ci jàmmam nga taseeg moom waaw naan ñii lu ñuy mëllañ mëllañ ñi tàngoor wi mais xam nga ne foofu colonisation psychologique moo fa nekk parce que da ngaa muuroo mees taseeg moom sa bët muuru booy dox di wiccax sa bopp moom nag dafa simplifié wu kanamam génn te bu ngeen rombee sans complexe du ko am du am complexe yow nag ngay bëgg a xas koo xam ne buñ la toppee war war nañ la yedd parce que tubaab bi moo indi ab usine am ne yàlla nee na ngeen muuru ngeen bañ waaye force dinaa leen muur ci mèche ci linda ci xeetu matière synthétique yi nga xam ne yàlla nee na ñi koy def du ñu am xeetu aljana dinaa jarul may guddal mbokk mi li mu doon wax rek mooy nañu dellu si ci yàlla te jël alquran bii mu nekk suñu feuille de route nekk suñu guide jël yonent bi salaa salaam jël kër yonent bi xam lan mooy la vie du prophète ñu jàng ko jàngal ko suñu njaboot dundal suñu njaboot ci diine su ko defee bu ñu dee suñu ginnaaw suñu njaboot di ñu ñaanal yàlla nee na ñi baax ba jóge fi alxaq na bihim zuriyatum dinaa jël seen njaboot yéegi leen ci seen darajay baay wa ma alatna min amali min shay te du yàq ci seen jaamu dara gis ngeen sëriñ su baax si bër bu set seeni doom ak i seen sët ñu ngi wàcce kaamil guddi ak bëccëg ci daara yi di leen ñaanal ñu koy wiire ci seen compte bàyyi boo bàyyee nag doom joo xam ne mbërum làmb la dam bàyyi doom joo xam ne staaru fecckat la wala staaru li ñuy tudde wéykat la ah xam ngeen ne wéykat yi yépp yàlla da leen paqueté rëbb leen yëbb leen safara wa ashuaraau yatbaumul ghaawun yàlla nee na wéykat yi yépp safara lañ jëm ñu ne ha mu ne illa lazina amanu du ma guddal ci aaya ba xam ngeen ko nee na lu dul ñay tagg yonent bi di bind ay poésie ñu koy wëy ci rime bu rafet mu ne ñooñu day bokk ñu ci mu mel ni poésie yi nga xam ne maam El Hadj Malick bind na ko sëñ Touba bind na ko nee na yooyee de bokk ci waaye lu dul loolu wëy yi ngeen di dégg ci rajo bi ci télévision yi wëy la yoo xam ne nii du wëy yu baax bindaan ma xawma lan sama yaay tukki na sama baay dem na ndar yooyu yëpp nga xam ne jàngal xale yi ak mbon loolu nañ ko moytu bu baax a baax kon yàlla ñu yàlla may dégg ak topp ñu ngi bañ a nëxal li mbokk mi waxoon yàlla ñu ko yàlla feyal léegi nag waxtaan lañu wax li mu doon wax lu ci lënt ah ñu laaj ko ko loo xam ne leer na ci oustaz yaa ngi fi ku am lu muy contribuer waaw waaw ñuy